naka jàmm daanaka yéenekaay yu nu xëyandool ñoom ñëpp sëgg sa ngéem boole ci dinu tàgge fukki doomu aadama ak ñett yoo xam ne ni ki démb ci aljuma ji lañu ñàkk seen bakkan ñii ci ay l'accident ña ca des ci ay lakk-lakk libération yéenekaay ne aljumay démb ji kay tàngoon na jërri ci kaw tali bi rawatina ca diggante Kaolack jàpp mbuuru utali bi ñoo na journal bi ne ñaari oto ñoo njëkk mbëkkante ca boori gin gi neew juróom-ñetti doomu aadama daldi ci ñàkk seen bakkan ca popp ngin séeréer lakk gu metti goo xam ne ab sondeel moo ko sooke moo fa am ba ñetti daal di fay ñàkk seen bakkan seeni at toll ci ñaar jàpp fukki at ak benn ba ca des ñaari conseil yu bokk ci coalition yeewi askan wi ak ci coalition Benno Bokk Yaakaar ñoo doon dem ngir fekke ji installation maire bu Mangangulak ñoom it seenub oto daal di saaraan mbëkk garab ñu ñàkk seen bakkan Vox Populi ne ca Gosaas itam juróom-ñetti doomu aadama ñoo fa ñàkk seen bakkan ci l'accident yéenekaay bi ne la ko sooke moo di benn minicar bu jóge woon ca Poroxaan moom mbëkkante ak benn bus juróom-ñett daal di cay faatu ci saase toll jafe-jafe yi ma jigéen njaay di dund jamono ji kenn xamul nu mu toll xibaar bi moo ngi ci xët u njëkkul l'observateur journal U 15 angle corniche bi boole ci fésal nataalub ndaw si te ñuy xamal ni moom ma jigéen njaay dafa mel ni àdduna buy tukki mooy wàcc ci kawam ndax jafe-jafe yi mu tegale ci diirub juróom benn weer rek ci la jànkonteek loo xam ni ku nu ko nettali sa loxo dina dem gémmiñ ci weeru octobre atum 2021 yéenekaay bi nee na moom ma jigéen ci la ñàkk waay juróom wu góor weer gannaaw ba yaayam daal di génn àdduna ci weer wi nu weesu nag ci la ñàkkee boroom kër Ibrahima tax mu tàbbi ci ak tenj lakk gu metti daal di ko fay fekk yóbbu ñetti doomam lii lépp tax ba journal l'Observateur ci xalima ak Mariama Gueye xëy def ci ndaw si gëstu bu yaatu ak dinu wax jafe-jafe yi muy jànkonteel yaatu na tey yéenekaay yu xëy di wax ci maire yi déggoon daali keroog ñaar fukki fan ak ñett ci weeru janvier ci élection gox-goxaat yi doon am ci réewum Sénégal la soleil national ne yooyee élection kay seetlu gi moo di ne jigéen ñi def am solo ndax nag am na ci fukki maire ak juróom-ñett koy jiite docteur Babacar Diop mooy jiite mairie bu Thiès ab nataalam moo nekk ci xët u njëkk journal l'info yéenekaay bi ne docteur Babacar Diop teg nan ko ci kaw bokk moomeelu benn dëkk ñaari gaar ba tax muy xamle ci biir journal bi ne dafa bëgg def cees mu nekk dëkku dëkkub bañkat taxawu jigéen ñi taxawu góor ñi taxawu ndaw ñi rawatina étudiants yi lépp lu aju ci guerre moom dina aju loolu te it démocratie rekk la fa yéenee doxal Les Échos yéenekaay ne booba fekk na Bamba Fall moom ko mu nar a jiite waata mairie ci biir journal bi moo di ne bu mandaam bi jeexee dootul yootu beneen mandat ngir jiite waatu Médina mairie bu Yoff Seydina Issa Laye moo koy jiite ci biir journal Les ko mu fay xamle ne ñëwul ci bopp mairie bu Yoff ngir di fa defante wala di fa indil jafe-jafe kenn liggéey moo ko tax a jug te ñépp la ciy tàllal loxo ñu tekk ñun sunu loxo ci journal L'As yéenekaay bi xëy di càmbar résultat yi PDS di parti démocratique sénégalais te góor gi national di président Abdoulaye Wade di ko jiite amoon ci élection gox goxaat yi nin ko mën a waxe moo di ne soldat yu doon dem cib xare te àndunook seeni généraux Marie Sow Ndiaye ne PDS di parti démocratique sénégalais daal jamono ji bu bëggee jugaat melaat na mu meloon fawu Karim Meïssa Wade ñibbisi ci réew mi Momar Diong nekk ab analyste politique ne nan wax wax ji PDS dañoo toogul taxawuñu kenn xamul fu nu jëm lii bokk na ci li waral li ñu nekkee li njàng mekk njàngale mi nekk ci jamono ji bu ci saafara judduwul loxo dina dem gémmiñ si du quotidien ab diir ngi nii professeurs yi di jàngalekat yi yi ne li Sénégal daal di jëfe li ñu xaatimoon ci atum 2018 ba tax ñu lànk dem ci classe yi ngir wéy di jàngale élèves yi ñoom it sonn ci loolu tàyyi ci dal di tàmbalee wàcc ci mbedd yi ne ñoom li ñu bëgg moo di dellu ci classe yi dem jàngi journal bi ne fi mu toll nag waajuri ndongo yi ñoo nar a booloo defub dànk ñoom it yuuxu ba ñëpp dégg leen ngir nguur gi indi saafara ba seeni doom mën a dellu ci classe yi source aane ndax nag nguurug Sénégal yabal na ci ab gouvernement ma lu toll ci ñetti ministre muy ministre éducation ministre fonction publique ak ministre finance ak budget ñoom nag ñu nar a dajewaat ak jàngalekat yi ngir wax ak ñoom lu nu mën a dégg teyit journal bi nee na noonee la leen ko njiitu réew mi di président Macky Sall santé ñoom Sadio Mané ak seenub coupe ñoo nekk ci xët u njëkku enquête yéenekaay journal bi xëy di def bilan ci kaan bi nu weesu boole ci di nu càmbaral taxawaayu yenn ci gaynde yi ci kaan bi nu weesu yéenekaay bi ne Sadio Mané Kalidou Koulibaly ak Edouard Mendy ñoom bay nañ seen waar Idrissa Gana Gueye moom da doon réer ak a feeñ Diao Baldé Keita Boulaye Dia Pape Abou Cissé ak Habib Diallo ku ci mel ni Pape Gueye Bamba Dieng Pape Matar Sarr ak Joseph Lopi moom ay ndaw lan yoo xam ni dañ leen a war a bàyyi xel stade yéenekaay moom xëy di wax ci Edouard Mendy journal bi ne gannaaw bi mu jëlee Coupe d'Afrique des Nations bi góolub Sénégal bi jamono ji li mu teg bët moo di mondial des clubs bi record yéenekaay moom it ñëwaat ci Coupe d'Afrique des Nations bi boole ci dinu xamal ne nguurug Sénégal def nañ ci kaan bekk prime lu toll ci ñeenti milliards ci xaalisu CFA ñu delluwaat ci l'observateur waxaat ci faatu ko Aïssata Ka ca Daara Jolof la bi la wane wone moo di Aïssata Ka laataa muy faatu piqué na crise lu toll ci fukki yoon ak juróom